kontaan bu baax li tax ñu daje fii tey mooy di jaay li nga xam ni dañ koo jël ci ñooñu di def euh, loo xam ne ni ñu woowee crime la crime nag jéye bu rëy la moo gën a rëy ci jéye yi xam jumtuwaay bi nga xam ni moom nga jëloon di def jéye bi ñu jël ko jaay ko te loolu gis ngeen lu am solo ñi ci taxaw ñoo ngi def loo xam ne liggéey bu mucc ay am nañu xarañte bu baax mooy président Malick Lamotte mi taxaw sama wet di juge mais nga xam ne mooy directeur général bi mooy doxal liggéey boobu ah ñu yaakaar ni nag liggéey boobu dañ ko war a wéyal wéer ko ci ñaari anam benn bi mooy buñ koy jaay na ñëpp teew loolu mooy transparence buñ koy jaay it ku mën jënd nañ la bàyyi nga jënd loolu mooy impartialité te loolu defe naa ñoo si bi ñu commencé ba léegi am nañu ñaari milliards yu ñu jot a am ñoo ngi ci caisse de dépôt ak consignation te ci askan wi encore lay demaat. loolu day wane nii Sénégal dëkku yoon la dëkku yoon la mais bés bu nekk mu ngi seet yoon bi nu mu gën a rafetee nu mu gën a yembee ak nu mu gën a soree ci mën a euh, euh, aar nit ñi mu def ko. looloo indi ONRAC ONRAC nag commencé liggéeyam may rafetlu nag taxawaayu juge yi nga xam ni ñoom ñoo siy jàpp ndax lii yëpp nag ci seen dogal lay amee ak ci seen digal lay amee donc premier président cour d'appel a ngi ni taxaw muy président Amady Diouf procureur général di Ibrahima baaxum près la cour d'appel ñoo ngi ni taxaw wane seen pas-pas wane ba tey atte bi rek mooy dox ba àgg fii kon bokk maa ngi sargal ñëpp di féliciter ñëpp di ñaan lii daal donte jéye bi day arrêté mais lii moom bu fekkee am na rek te bëgguñu ko du suñu coobare mais bu amee it yàlla na fekk lii fii lay mujjee ndax askan bi mën a njëriñu